وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد يا ربنا إن الورى تدره bokk jullit bokk taalibe yi nu sant yàlla jullit Seydina Mohamed sant Seexul Xadim mi tax nu tal ko bis bu na bis nag di bis bu ni soxna Fatou kan jéemul yàlla dogal na mu jël cër bi cër la ko maam xarit Mbàkke jàmbaar jooju nga xam ni mu jëwul dara mu niin waaye nag daa war a mën a nekk Sëriñ Tuubaa Mbàkke maamam kooko tax nu tal ko kon bu yàlla dogalee soxna Fatou kan jël bis mi nga xay mooy doomu Mboor te bàyyam ba doon jàmbaar di sotti man yi kon bu dee jigéen ne wëlbatu ko jël liggéey teg fi kanamam ànd ak jàmbaar ju toll ni maam xarit Mbàkke kooku boobu bis yàlla na ci yàlla yi ñëpp boo na mbawul gépp ñu ngi koy yëgal sëñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides. sëriñ Moustapha imaam a Daaru Minam sëriñ Ahmadoun Mokhtar Mbacké xalifa Daaru Khoudoos ak sëriñ Khadim Amar xalifa Jéemul sëriñ Bass Abdou Khadir Touba sëriñ Amadoun Mbacké Touba docteur Dieng Jéemul docteur Sila Daaru Marnaan chef de quartier Touba Njaxaay Baye Njoogu Diop euh, jéemul Njaga Diop moom mi nga xam ni moo moo dirige njiite bale bi bu garage daaru te ñëpp nekk ci ginnaaw soxna Fatou Kane Diop bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen na ko yëgal jigéen ñi ñoo ngi ko yëgal jigéen ñi ñëpp ak l'ensemble groupement yi nga xam ne si ñoo nekk ci ginnaaw soxna Fatou Diop jéemul yëpp ci sama kàddu man ngañ mbay tam maa ngi koy ngañ mbay tubaa jéemul transporteur maa ngi jiital ci sama yëgle IDICAP président transporteur bu Touba moom mi nga xam ne moo jiite transport porteur yëpp bàyyiwuñ kenn di ko yëgal euh, groupement yëpp groupement chauffeur yëpp di ko yëgal aussi transporteur yi di ko yëgal chauffeur yi di ko yëgal receveur yi bu kenn manqué le 16 na ñëpp ñëw. dañuy daal di woote ci turu SNES bi yëpp rek ñi nga xamante ni si yàgg nañu ànd ak soxna Faty Kane ci liggéey bi di jiital waa association action concret ci njiital Serigne Bàcc Sène ak Serigne Cheikhouna Gueye di ci woo waa ahlu café njiitul sëriñ Mbacke Faye ak sëriñ Xaadim béy ñu ngi ci woo waa euh, Touba Njaxaay ci njiital sëriñ Njaxat Njaay di ci woo waa euh, action bi nga asas bi nga xamante ni si ñoo nekk fii ci koñ bi yàgg ànd ak soxna Faj Job jéemul ci njiitul sëriñ Mbaykan di ci woo ki nga xamante ni si moo sëriñ Ibrahima Dioum di njiital association am am set di ci woo ñi nga xamante ni si mboolem association lan fii te yàgg ànd ak soxna Faj Job jéemul di mag di jigéen di gone mboolem ñi xamante ne si ñoo di tout tànk yi nekk fii ci Touba jéemul ci turu senes bi ci seen kaddo maa leen ciy woo ñëpp bu bis baa la sées incha allahu rabbi ñu teel a xëy dem jiitu ji fa ca mbaarum daaru xuddoos toog fa tertu gan ñi diglu conférence ba mu jeex tàkk ñu àndaat ak soxna si ñibbi si ca nañ ko daan defe rek askanu Darmanko man woo naa ñëpp ndax ku ni jéemul rek yaa ni ko ndax kindi yaa nga jéemul Fatikan su wootee fii ci Touba waa jéemul la wooteel nag ndax jéemul moom mënta fex ba jéemul rek jéemul la mbawoor la ak jéemul ñoo ko ñoo ànd waaye jéemul nag woo naa ku naar bu dëkk jéemul ak ku ma xam ak ku ma xamut ñuy woo ñëpp bëgg ñu dem ci soxna maam maam Faat maam Xari Mbàkke moom Seex laa ki nga xam ne lépp mooma lu war a lépp bàyyi ma am na ko Amérique am na ko France am na ko Italie kon bu ko amee Touba war naa mën a ne noo ngi koy wooteel ci kàttan yàlla ak yonent bi jëmmi baayam ba di ko wooteel ndax bëgg ñëpp wuy suñu ngir yàlla ak jëmmi maam xëri wax ci télé mbaa ne wax ci rajo nag yàlla ak jëmmi koo jaral bu baax a baax a baax bu kenn manqué nag nañ ñëpp takku bu kenn xaar kenn na ñëpp ku ne xam ne ku ne na nga yaakaar ne yaa moom bis bi bu ku ne yaakaar ne yaa bis bi rek bis bi waa Touba Tawféex yéen ñëpp na ngeen waaj ci turu Soxna Ndiaye kan na ngeen waaj yéen ñëpp te ngeen teel a ñëw ndaxte ku yéex a ñëw ku nekk doo am place mbaarum daadu xudos ndax soxna Fatou Diop jéemun kat bu wootee tudde bis bi maam xari Mbàkke kon ñëpp danoo war a waaj te fas yéene wuj ji soxna kan soxna Fatou day liggéey ngir askan wi soxna Fatou Diop jéemu dencu dara luñ ko jox lu nekk dana yëkkat lu ñu toll def ko ci askan wi te yàlla ak jëmmi sëriñ bi dong nag tax. gannaaw ba ma sant yàlla julli ci yonante bi di ñaanal sa sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu Mbacké ti di yëkkat sama kàddu nag di ko ànd ak mboolem groupement yi ma àndal Touba. association xale yu góor yi kilifa yi sama papa sama nijaay sama doom yi sama càmmiñ ndax ñëpp dañoo dikk jox ma seen bopp ànd man ci tuubaa ñuy liggéey rawatina ñi nga xam ne faw ma tudd leen mooy sëñ ngañ mii ak sëñ bay Jóom mii ñu wax rekk ak sang waaye nag groupement yi faaw ma laal ci tuuti. bis bi dafa jóg ma yëkkati gis maam Xari jàmbaar ji ci def tuubaa loo xam ne kenn defu ko ci wàllu lislaam maam Xari Mbàkke jóg. jàppale góor jàppale mag jàppale ndaw yor tànku papaam sëriñ Mourtala Mbàkke comme ni mu gindee tubaab yi gindi nit ñu ñuul ñi ñëw ne dan yoonu sëriñ Touba maam xëri Mbàkke im nu sëñ Mourtala Mbàkke maam xëri Mbàkke kon ku ne sëñ Mourtala Mbàkke dangay wax sëñ Bàmba xaadim rasool suñu yaakaar tey ak ëllëg hmm. kon dama jël bis bi nag tuddee ko maam xëri Mbàkke ba mu jeex tàkk tàkk bis bi bisu maam xëri Mbàkke mboolem ak koo xam ne yaa ngi ànd ak maam xëri Mbàkke te sës ci maam xëri Mbàkke bis bi nag dama ciy woo suñu président Macky Sall di ci woo Marième Faye Sall première dame waaye di ci woo kon maam xëri Mbàkke moo jël bis bi tuddee ko bis bi di ci yoo Aly Ngouille Ndiaye ministère di ci woo ministère Dame Diop di woo mboolem responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ak département di Mbacké ak Diourbel ñoom ñëpp bu ma limee damay juum kon maa ngi leen ci woo bu ko kenn woote di ci woo mboolem kilifa yi Mbacké ak Faal ñoom ñëpp maa ngi leen di woo di ci di yëkkat sama kàddu nag góor ak jigéen mboolem groupement yi ñëpp groupement yëpp maa ngi leen di ciy woo maagi ngi jiital soxna Anta Dieng ci hôpitalu Jéeman Touba Ndiakhaay soxna Mbaaj Amar Asalem soxna Maam Bousso Touba Ndiakhaay soxna Penda Diaw Touba Jéemun sokna Kiné Maroon Kër Wele soxna Ndiaye Kane Touba Tawfiix soxna Fan Ndiaye Touba Tawfiix soxna Maam Say Ndiaye Touba Tawfiix soxna Ndaw Touba Tawfiix soxna Daba Diop Saam soxna Khady Bieye Saam soxna Kodou Fall Saam soxna Kodou Fall Saam soxna Binta Si Touba Njaxaay soxna Fan euh, soxna soxna Wadd Asalem mu ànd koog soxna Awa Ndiaye asalem soxna Maguette Bey asalem soxna maam Faati Diop asalem soxna maam Jaara Gede soxna maam Jaara Gede soxna Nogay Mbeng mu àndante koog Nday Ndiaye Bayal ba soxna Rama Diop Dóoru Marnaan soxna Fat Caam garabu Baay Diop xayra de kon ñoom ñëpp soxna Nday Fall gaaraasu Dakar soxna Fatou Kan xayma ya soxna Jamagay xayma ya soxna bi soxna Faat Njaay lay ci Touba Jéemun soxna Daba Ba àndante koog soxna Fatim Ngom ci Touba Jéemun kon soxna Awa Amar Asalem soxna soxna Aram lay fii ci moom ci Asalem kon ñoom ñëpp ñoo ngi leen di woo ci bis bi. soxna Fall moom it maa ngi koy woo ci bis bi ci Kër Wele ñoom ñëpp nag ay njiit lañu. soxna Maguette Gueye soxna Maam Faati soxna Seynabou Diouf Gade ñoom ñëpp maa ngi leen di woo. soxna Ndumbe Mbàkke ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ci bis bi soxna Xadi Bey Saam soxna Daba Diop ñoom ñëpp maa ngi leen ciy woo soxna Amsatu Fall Saam kon tool bi dafa yaatu soxna Nday Nger moom it amul xuraa maa ngi ko ciy woo ñoom ñëpp ay groupement ñoom ñëpp topp sama ginnaaw kon maa ngi leen ciy woo soxna Faama Mariama le groupement yëpp ku déggul sa turit xel mooy fattu soxna Caan Njaay ci asalem kon ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ci bis bi di yëkkat sama kàddu nag fas yéene la sees ñun ñëpp nañ mobilisé wu mbarum maarum daaru xuddoos dal koog bisimilahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilah bis boobu kañ la la sees lay doon fii ci mbaarum daaru xuddoos wala ñëpp kan ma woote bis bi mooy soxna Fatou Kanto moom ma woor boobu bàyyiwul kenn wala ñëpp ku fa ñëw nag maam xari Mbàkke nga fekk si te dana la fat te ku mu fat doo fanaan bitti kooku mooy Cheikhul Khadim mi tax nu tal ko kooku mooy lépp mooy Sénégal mooy adduna mooy fépp mooy tey mooy ëllëg